taaral lamb foog naa ne tey gis ngeen ko tay gaa yi ko doon laaj waaye ñëw na tey xam nga li tax mu ñëw bi ci njëkk mooy borom bés bi bi ci njëkk nag dafa jot mu ñëw moo tax mu ñëw bu ñu waxantee dëgg rek promoteur yëpp ñu ngi koy démarché mais adversaire yi ñoo koy moytu ah. te adversaire yi nañ bëreeg moom GFM dox na ko moog Yékini Junior ah. mu delloo avance Moussa Ndoye dox nañ ko Ama Neex dox nañ ko Thiam Production ak kanati ci am production Fallou Ndiaye moom ak guy gi. dama ne amul promoteur bu décor euh, doxul jigéen bu dul mbër ak gars yi. Ah. mais gars yi daal ñoo koy moytu. te te mu warul ko namm. non dama ne bu bëree mu neex. am na mbooloo. ñeme na géew. Ah, boo gisee jigéen Modou Lo nga gis. Eh. te moo gën a taasara Modou Lo. Ah. waaw. mais tey jii Balla boo booy ñaar dimanche bii i ñëw sa sa noo non combat boobu cinquante cinquante la. li nga xam ne cinquante cinquante la. Balla mu da mu dee moo ko gënal mu daanu. li waral loolu mooy booy Niang daa dugg foofu. daan Sa Thiès. moo tax nag benn ngémb doo ko daan jafe na ci làmb nga dugg ci benn kër ak sa benn ngémb daan leen. waaye nag xale bi liggéey na lu tax mu daan ko. Balla nag gaynde la gaynde gu ñu gaañ la booy bi da ko gaañ ci ay ay ay ay. wax mu comprendre loolu def entraîné ji. moo tax ma ne cinquante cinquante la. waaye ku daanu. papa papa papa kooku suñu papa la kooku papa yi jën kay rek nee na jën kay daa war a bëri nee na la no comment.